heure dellu si waat niñ ko baaxoo di def ayu bës bu jot yéen ñu ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm ci seen biir émission tey nag dañ leen tànnal ñaari artiste muy Bakagnon ak Stéphane Kabou ñoom ñaar ñëpp woy lu neex loo xamante ne liñ ci mën a wax bëre na lool kii dafa woy mbëggeel muy Dieynaba Bakagnon ka ca des daal di woy suuf muy Stéphane Kabou waaye balaa ñoo xuus ci biir waxtaan wi balaa ñoo tas ñaari woy yooyu dañ leen di njëkk bàyyi ak image kon ñu dem seetaan Bakañon don Dieynaba ak Stéphane Kabou dans Suuf à tout de suite ci ndox xam nga faa ma jéggi la ah faa ma la ah faa woon yeesu mbaa mu saa faa ma nangu ñi ma gën a bëgg nangu ñi ma gën a bañ nangu samay dëgg teg ma naka dudul deñ suuf dellu ci suuf jëli

ñii di wax ñoom ñëpp ci gannaaw la des yàlla noppi na sotti na ñun ñoo ci des suuf moom day warax ñun ñoo ci sa parax parax jaru ko ci laaj bi bay fële sa la sàmm suñu ruu mooy liggéey jàmm ku ñu doy ku ñu ku fi sooy ku tax sa xol di nooy kii dax sa life di bes di law ba faw naw sa daayif sa bàyyi lay di bes di law ba faw suuf dellu ci suuf jël li nga moom gaaw suuf dellu ci suuf jël li nga moom gaaw woon Dieynaba bu Bakañoo ak suuf bu Stéphane Kabou li ñuy def léegi nag mooy dem seeti leen ñu waxtaan ñu tasal ñu ñaari way yi na ngeen concentré wu nag ndax ñaari waykat yi li ñu wax am na solo lool te li ñu leeral itam bëri na ñu seetaan leen maa ngi sant yàlla bu baax a baax euh, di julli ci int bi comme ni ñu koy waxee rek. Mhm. Euh, sangu-sang yi. Uh-huh. Euh, di sant samay ñaari waajur bu baax a baax a baax di nuyu samay fans. Uh-huh. bu baax a baax di nuyu waa Sénégal di nuyu képp ki nga xam ne rek vraiment yaa ngi seetaan tey émission bi nga xam ne mooy tas tasar. Uh-huh. ñu fas yéene fee tasaare lu bari tey. waaw Zeyna maa ngi remercier si maa ngi remercier si invitation bi. di nuyu téléspectateur TFM yëpp. plus précisément tas tasar. di rafetlu émission bu baax bi nga. lu tax Bakaway Dieynaba dafa di loo xamante ne danga ko dund wala sa entourage dund ko wala da gis ne ñu koy dund dañoo bëri moo tax nga way ko. waaw euh, ñi koy dund dañoo bëri euh, aussi tamit mu nekk benn histoire boo xam ni euh, sama histoire xarit la. ah du yow du man parce que est que du yow sax <laughs> sérieusement. du man du man du man koo xam ni vraiment sama xarit la. moo ko doon dund ak ki mu bëgg. Uh-huh. bi mu koy dund ak ki mu bëgg ma fekk ci lu bari. waaw fekk ci lu bari vraiment yëg ci lu bari dox ci lu bari. Mhm. Euh, ba tax nag loolu moo ma moo moo ma gën a yokk. Mhm. Euh, maanaam ma dugg ci texte boobu noonu maanaam bind ci son bi nga xam ne mooy jeene mhm. waaw loolu moo war waral jeene ba. Stéphane yaa ngi woy suuf ci premier couplet bi yaa ngi dugg rek naan lekkkatu nit bi tabaxkatu nit bi. et cetera et cetera. tooñ te doo jéggalu ci yow la ñuy jébbalu. am nga premier couplet bi yëpp au dañuy gis. ku mer kuy wax ànd ak colère est-ce qu'on se trompe. tout loolu la en fait. Uh-huh. suuf dama ñëw ne lekk kàttu nit bi tabax kàttu nit bi njiit bi yaay dogal yor ji ko jiit bi. Uh-huh. tooñ te doo jéggalu ci yow la ñuy jébbalu. su ma mënoon dox ci ndox xam nga faaw ma jéggalu. su ma nekkoon Jésus mbaa Moussa Fall ma moytu la. waaw loolu laay wax loolu laay wax suuf. mel ni comme sa colère sa mere suuf nga def. parce que suuf moom moo lekk ñi nga. ñi nga gën a bëgg nangu ñi ma gën bëgg nangu ñi ma gën bañ. waaw comme loolu la daal. damay mel ni kuy plaindre si ci ci suuf. Hmm. léegi yow si refrain bi yaa ngi wax ay eh, wallaay Dieynaba I swear to God yaa may misère loo Sénégal la nekk nag cabaxal nga ci tuuti anglais. waaw bëgg nga faram-fàcce euh, ko tekki ko. morceau Dieynaba nag dafa international quoi comme ni ma koy euh, waxee mu nekk morceau boo xam ne musique xew na si jamono euh, ba tax mal boole ci ay làkk yu bon yu yu bokkul di ko ci làkk. Uh-huh. parce que bu ma nee te bi xootul noonu sax. xóotul waaw pour bëgg rek sénégalais yi di leen ci sóoraale ñi nga xam ni may wax lan la. Uh-huh. parce que maa ngi naan ci hey hey wallaahi Dieynaba I swear to God yaa may misère loo. Uh-huh. moom mooy jeene ba war naa ko ci yàlla nii man yaa may misère loolu. ah d'accord ay sootu gaat waat la. ñu ah. mel ni ma ni billaahi uh-huh. parce que boo xoolee clip bi maa ngi bon maa ngi pointé li nga xam ne mooy fi suñu borom la fi fi mu ne. Uh-huh. Euh, di fa joxoñ bu baax di wax. waaw waat la daal maanaam. léegi su ma la woon Stéphane euh, tasal ma suuf dellu ci suuf jël li nga moom loo may wax. <laughs> waaw dama ne suuf dellu ci suuf jël li nga moom got mooy. yomb na suuf lañ ñun suuf. Mhm. à la base suuf lañ. donc lépp suuf lañ dañuy delluwaat ci suuf. lépp lu ñu gis fii nii lépp lu ñu wër. Mhm. caméra bi micro bi lépp ci suuf lay delluwaat. Mhm. donc voilà loolu la son bi en fait en gros loolu la. Mhm. donc lépp ci suuf lay jógee lépp. lépp ci suuf lay dellu d' accord mais par contre si deuxième euh, couplet bi. dañuy gis quand même paradoxe bu xaw bu ndaw diggante moom ak premier couplet bi. parce que fii gisuñu ku mer ñu ngi gis quelqu'un de croyant. koo xamante ne mi ngi naan euh, euh, kii yàlla noppi na sotti na. ñun ñoo ci des. ñun ñoo ci des parax parax jarul. jaru ko ci live ko ci live. tu joxe en même temps des conseils et lan moo waral déjà mer bi ak fii ni nga balee. Mhm. nekk un croyant. mooy ñaari façon yi di nekk ci ñun rek mooy la yëng la bi mooy lu ñuul li ak lu weex li guddeeg bëccëg. ok waaw mer bi nit koo xam ne dafa mer. Uh-huh. wax xalaatam ak nit koo xam ne dafa ne ah xalaat bi kat lii la nangu ni lii la mu gëm ko même bu nekkee day mere nangu ni lii la ndax yàlla ñëpp xam nañ ni yàlla am na ñëpp xam nañ ni yàlla moom mooy dogal mhm. tey jii nii bu jëlee kenn mhm. koo xamante ni yow la jege mhm. di nga mer amul kenn ci suuf koo xamante ni mënul wéet na te borom bi dafa ko loo xam ne mer na si. ok amul waaye da koy gëm xam ne lii la moo tax ma andi ñaari façon yooyu noonu. Hmm. yaa ngi wax tamit wax naa la ko ma topp la ca biral la ko ci say nopp taxul nga gëm ma waaye ci biir clip bi dañuy dañuy gis ne euh, gal bi. Hmm. sooy seet ba seet wonewul ñàkk la gëm ñàkk laa nopp la wane da doon sagu wala. waaw euh, noonu la noonu la demee parce que boo dee déglu ci biir morceau bi. li may wax uh-huh. mooy euh, moom ñoom seen début seen début dafa metti uh-huh. euh, maanaam ñi tax ma. xam nga nu ñuy def waxtaan wi neex. Mm-hmm. daf ko yow rek. dund ko rek. <laughs> waaw ayca kon baal ma dund ko. <laughs> dund ko rek kon baal ma dund ko ba pour yombalal la ko. Uh-huh. Euh, début bi dafa metti parce que ku ne xam ne ni nit bu la suñu borom booleeg moom. ngeen di dox ci loo xamante ne mm-hmm. da ko bëgg gëmloo ni moom. da nga mm-hmm. bëgg ba mu jeex des du yomb. du ko mën a gëm. parce que àdduna bi nekk moo doy waar. Mhm. dangay gis koo xam sax day dangay gis koo xam sax da lay leer ne kii euh, maanaam kii ñoo di wax ak moom da koo bëgg mais du ko mën a gëm. Mhm. parce que yàqkat yi dafa bari bon ñi nga xam ne dañuy naxee comme ni nga koy waxee dafa bari. léegi ci parolu suuf euh, yaa ngi woy suuf mm. jóge ci suuf dellu ci suuf ñu gis ne. ci début clip bi da ngay génn. tu vois bi ngay génn lu tax génnoo ci suuf nga génn ci ndox bu fekkee ci suuf la ñuy jóge nar a delluwaat ci suuf pourquoi euh, loolu génn ci ndox bi. <laughs> ndox mooy suuf. ah waaw lu ndox nekkee suuf. Euh, nee nañ nit suuf lañ ko tabax def defaree lañ ko tabaxee. ok waaye tey jigéen buy buy mucc. Uh-huh. buy am doom dañ naan et perd les eaux. Uh-huh. ndox moo njëkk a génn balaa sax nit ki di génn. ok waaw ndox moo jiitu lépp ndox mënul ñàkk. ok bu nekkee si mbiru yaay sax si ndox lay fay. Mm. waaw waaye ba tey si suuf lay dellu. Mm-hmm. bu jeexee. Mm-hmm. donk ndox mooy suuf rek. ok léegi yow si biir si biir clip bi ah ba tey euh, bi nga génnee si ndox bi yaa ngi avancé wu dem si benn jigéen mu jox la yére on a voulu faire croire aux téléspectateurs que Stéphane était nu <laughs> ñu jox ko yére mu sol. est-ce que réellement tu étais nu wala. Euh, si clip bi la clip bi ki fa nekk waaw ki ne ci clip bi. ndax dafa ñëw si comme nit buy juddu. dafa nekk benn vidéo dafa nekk benn vidéo uh-huh. daanu ci ndox bi ba mu génnee génn ci ndox bi nekk benn nit à l'état pur. comme ku soog a gane si àdduna. waaw daje benn jigéen boo xamante ni dafa dafa vierge si léppam. ok moo ko jox yére yu mu sol. pour mu mën a avancer. d' accord yaa ngi wax tam I wanna be your baby want you to be my mama. Mhm. Euh, daal di si teg làkk goo xamante ne du wolof du anglais. xaw ma ban làkk la doon waaw kooku swahili la. swahili uh-huh, léegi tekk ñu li nga wax ci swahili ak li nga jot a wax ci kaw en anglais. <laughs> waaw foofu dama naan euh, bëgg naa nga nekk sama. Mhm. sama sama mama euh, bëgg naa nekk sa baby. comme ni nga koy waxee bëgg naa nga nekk sama maanaam sama yaay waaw sama yaay ma nekk sa doom mhm. comme comme comme ñi bëggante ni ñu koy waxee ma mhm. euh, jógee foofu daal ni euh, nakata kuku wa daal di wàkku mhm. nakata kuku wa daal di wàkku nakata kuku wa maami wàkku ma point zi wango maa point mooy sama mbëggeel man dëgg la sama mbëggeel dëgg la nakata kuku nag moom mooy bëgg naa nga doon sama mama mooy li nga wax ci anglais rek moom nga tekki waaw moom la wax ci Swahili ok nakata kuku wa daadi wàkku uh-huh. nakata kuku wa maami wàkku uh-huh. waaw bëgg naa nekk sa sa maanaam sa papa te bëgg uh-huh. naa nga ni sama maman moom laa fay wax foofu ok yaa ngi naan samay biir morom jikkoy góor jàpp ma ma naan tey di <laughs> su ma rombee duma ko faale ndeke boobu ñi toog Euh, laa man laa dul faale. waaw xam nga mbëggeel day jàpp nit. dafa mel ni góor yi dañoo orgueilleux de ah. <laughs> waaw loolu moom suñu borom euh, dafa dogal góor xaw a mel noonu. Uh-huh. Euh, góor tey mën naa toog ci ay moroomu góoram mais du nangoo doon coomo. waaw day sago loolu moom loolu moom loolu moom. xam nga. Uh-huh. naturel noonu la mel noonu la uh-huh. góor mel. Uh-huh. Uh, tey bu toogee tey biiru morom moom nga dégg ku nekk naan sama yow moom sa jabar dalaa nam ñi naan yow moom sa jabar yow foo ko gisee di lox nga dégg ku nekk di commencé siisu mais dafa mel ni daanu nga de ndax ba mu rombee da mujjee jóg topp ko dafa mel ni mbëggeel mooy def noonu tey bu la neexee nga toog fu nekk di siisu di bañ mais ki nga bëgg bu la rombee boo koy topp doo ko tey si biir si tournage Stéphane il était nu ou pas. li nekk ci clip bi noonu. non non tas tasam la ñu wax li làkkatu ci ginnaaw image ak paroles yëpp foog ñu waxtaanee ko Stéphane. d'accord yow yaa def clip boobu. waaw sénégalais yëpp si posé ay questions. waaw nga leeralal ñu ko tu étais nu pas. non ci clip bi nekk moo nu. Ah, mais dañ def benn silhouette boo xamante ni dañ ko dañ ko dañ ko flouté. léegi day joxe loolu. mais ci clip bi nekk moo nekk. d'accord ok léegi ci biir euh, clip bi suuf extraordinaire. yow lan mooy sa rôle ci clip bi surtout à la fin bi ngay dox ñëw ci ci ci benn kër. jigéen bi daal di yeewu. tu vois ki lay jox yére yi xale bu jigéen bi nga bi toog. yor bi waaw tibb mhm. loxo bi suuf mu mu génnee fleur. Mhm. ku góor ki nekk si biir grotte bi. Mhm. yooyu yëpp rôle yooyu yëpp. lan la exactement. <laughs> waaw boo gi euh, xam nga ci ndox laa commencé. waa léegi àdduna bi ñun jàng nañ ni quatre éléments moo koy doxal. waaw l'eau la terre le vent et le feu. ok léegi clip bi nag loolu la. Oh. loolu bu amee dund day am. waaye benn bu si ñaax dund dootul am. ndox mënul ñaax ngelaw mënul ñaax. Mhm. Euh, suuf mënul ñaax. Mhm. feu mënul ñaax mhm. feu moom mooy naaj bi. mooy énergie bi ñuy dundal mooy liy génnee image bii nii tey. mooy feu donc loolu yëpp bu dajaloowee. day am dund moo tax dama génn dox dem si ngelaw bi. après dem saluer maître du vent bi. jóge foofu noonu dem si maître. voilà jóge dem dem dox dox dox dajeeg maître de la terre saluer ko ci la xale bi yor benn fleur tijji ko yor suuf bi fleur tijji ko fleur bi màgg mooy wane ni suuf loo si jëmbal rek mu am résultat mooy encore vie une vie dund uh-huh. waaw ci suuf lay jóge ci suuf lay dellu ok waaw kon ñooñu ñëpp ay maître lañu woon ñooñu ñëpp ay day lu ñuy représenté waaw waaw d'accord léegi nag ma doxaat après dem dajeeg maître du feu bi ok saluer ko mu saluer ma après ma dem ci laa gis nag jigéen boobu ci kër gi. d'accord Bakka gis nañ si biir clip bi tamit ne da nga si c'est vrai que clip bi tourné woo ko Sénégal ku xool image yi xam ne du Sénégal. Mhm. mais dañ ciy gis image u Sénégal déjà si mélodie bi sentir nañ si tuuti sabar gis nañ drapeau Sénégal gis nañ ay fecc Sénégal lan moo waral mixage boobu. moom nga waaw mixage boobu li ko waral mooy bëgg mu international rek. waaw bëgg mu international te aussi ku ne xam na ni. Euh, maanaam xeetu musique boobu. Uh-huh. jamono ji dafa bëri doole. ci àdduna amul fooy dem ba doo ko fecc. Uh-huh. amul fooy dem ba doo ko dégg. Uh-huh. Uh, nekk ci kaw la def même États-Unis sax musique boobu dafa dem ba am fa doole. te États-Unis hip hop lañ xamoon ak R&B. mais euh, coupé décalé boobu dafa dem ba dugg foofu noonu. bëri fa doole trop. Euh, léegi nag euh, te vraiment ku ne xam na ni Sénégal. tey amul ñoo xam ne bëri nañ ñu ko fi def te bëgguma koo def tey beneen doomi réew xool ko daal ni kii nii Ghana la dëkk wala Nigéria la dëkk. moo tax nga ca baxal si moo tax nag ma jël marimba bi. Euh, def ko ci biir. nga xam ne lii day nekk euh, coupé décalé. ak euh, mbalax. waaw jël ay tama nag aussi def ko ci. Mhm. pour bëgg. jël aussi drapo bi tamit def ko ci mhm. pour bëgg rek euh, maanaam sigil sama dëkk mhm. sigil sama réew pour wax sama waa dëkk ni vraiment mhm. euh, Sénégal suñu borom may na ko lu ne te ñun am nañ ñu chance pour def li nga xam ni tey moom day nekk ci kaw àdduna ok léegi bu ñu dellu si waatee toujours euh, si si si clip bi ah finalement dafa mel ni yàggal bi mujjee ngeen nekk de waaw mujjee na ñëw Eh. mujjee na ñëw parce que danaan euh, li olof Ndiaye naan euh, xëcc bu daggul dikk. Eh, eh. waaw xëcc bu daggul dikk day day day day yàgg rek baa mu teeñ. mais waaw mais xëcc bu daggul dikk. clip bi loolu la wane parce que euh, li ma ko war a wax yëpp wax naa ko. bu baax nangul li ma ko war woon yëpp wan naa ko. mais xam nga finally. moom moom mujj naa ñëw quoi. waaw loolu si biir clip bi la mais dans la vraie vie réalité bi tam est-ce que noonu la demee. non non dunduma ko. waaw dundoo ko mais d'accord xam naa ne nangu woon ne dundu woo ko man dund naa lu mel noonu. ok oh, mais yaa ngi dikk ndànk de. man non non waaw mais dans la vie réelle est-ce que waaja ak gelba mujjee. waaw mujj nañ sëy. ah, ah dañoo saf sëy mujj nañu sëy. Ah, kon tey bu ma loolu jàppee tey bu ma bind ci morceau. Ah, euh, mooy dafa nekk loo xam ne dafa rëy ci man. te dafa diib ci man si wax seen seen maanaam seen seen seen dund ñoom ñaar. ok euh, bon nekkoon na loo xam ni. Euh, lu rëy la woon. Mhm. parce que loo xam chaque jour mu ciy waxtaan xam nga ma ciy waxtaan ak moom di ko ci dolli moom tey mu ciy mhm. euh, may waxtaan ak ki mooy soxnaam. Mhm. ba suñu borom may leen euh, nag lii du ma ko bàyyi mu dem. foog moo foog moo bind lu ma la may biir ñoom. Ah. waaw ñoom ñaar luñ dund la ma bokk ci kon il faut ma bind boo xam ne vraiment. dina laal ñeen ñi nga xam ne aussi ñu ngi koy dund. léegi si Stéphane sa clip bi dafa bëri siñ torop j'ai regardé sur internet et tout mais ñu bëri dañu wax sax Stéphane franc la parce que si ñu nekk ci clipam yi dafa bëri déjà triangle yi. waaw triangle yi si kanam. waaw triangle yi ba si xale bu jigéen bi ki ki yokk fleur bi. noonu fi mu toog forme loolu. triangle la forme case bi. triangle la mhm. jigéen bi on a compris qu'elle était tombée enceinte triangle la ñu dessiné si biiram. Mhm. lan mooy signe yooyu aujourd'hui que tu as l'opportunité waaw de nous mhm. explique-nous lañ la signe yooyu di tekk parce que ñuy wax franc-maçon nga bëri nañ waaw non non loolu ça n'a rien ak lu maçonnique yow gis nga li ma wax fii yëpp mhm. dépassé na sax mas jëfu lu lu lu lu spirituel la moo tax tas ko day baax waaw moo tax ñu war ko tas léegi pour mu expliquer loo rek mooy euh, ci fin bi ba mhm. ma dajeeg maître du feu bi mooy wane ni quatre éléments yooyu yëpp day joxe dund mhm. moo tax ma dem fekk benn jigéen boo xam dafa tëdd mhm. jëkkëram moo de mhm. mu jël photo bi di jooy nekk dafa ëmboon xamu ko léegi comme daje naa loolu noonu yëpp te wax naa loolu noonu yëpp boo ko amee am dund ma romb moom mu geestu xool après jóg làmb biir bi sentir ni dafa ëmb moo tax ñu dessiné quatre éléments yi léegi ah, triangle yooyu triangle yooyu noonu symbole la doo xoolee Google di nga ko gis symbole boo defee symbole du feu da ngay wan triangle boo xam dafa taxaw ni symbole de l'eau triangle bu ñu incliné. Oh. bu nekk dafa laal géométrie laal hiéroglyphe laal noonu yëpp bu ba boo xoolee Égypte antique rek ay Grèce antique ba ñuy bind si mur yi uh-huh. noonu lañ ko doon bindee ay flèche ay bind yooyu rek lañ jëlaat def ko si mais rien à lu ma soññ kon xelu téléspectateur du sama sama sama fans yi ñi may suivre <laughs> gis naa ko uh-huh. ñi may suivre ñi may ñi may ñi may bëggee bu baax a baax la seen uh-huh. xel man loolu nekkuma si du ma si mës a nekk parce que damay wax euh, chaque fois naan li ñuy wax ni loolu la franc yi di am buñ ko nekkee. Mhm. man am lu ëpp loolu. donc soxla ma ko doon pour mën dund. waaw soxla ma ko. donc clip la boo xamante ni donc def nañ si moyens yi tourné ko bien comme il faut. Mhm. donc gars yi dañu war a xam ni tamit euh, clip bu mel noonu man. ma mhm. mosuma ko fi gis. waaw te am na ay professionnels yoo xam du ma tudd seen tur ñoo xam dañ ne c'est les meilleurs. professionnels yoo xam ne dañ ko wax. nangu ko wax ko partagé ko ci seen i mur def ko ci réseau yi bu baax a baax. nangu ni loolu la. donc nañ ci jàpp bu baax a baax ñu xam ni voilà. Euh, ay step la rek. Mhm. voilà image paysage audiovisuel bu Sénégal mhm. mooy am benn pas ci kanam keneen ñëw def leneen keneen ñëw def leneen ainsi de suite donc dañuy jéem dem ci kanam. d'accord voilà loolu la. loo xalaat ci Stéphane Kabou. waaw euh, Stéphane dafa nekk waa xam ni vraiment moom moom moom moom Baye Fall la. Mhm. franchement nit ku simple la euh, nit ku xëccul nit ku xëccul loo xam ni amul la. vraiment li muy dund lay lay wane ci doomu aadama yi. te te yàgg nañu bokk plateau maam moom. Mhm. Euh, mu nekk ni ku baax vraiment di def affaire yu am solo aussi. di def ay vidéo yoo xam ni chaque jour ma ko nee naa ko vidéo yi ngay def ay vidéo yu high quality la. Mhm. maanaam vidéo yoo xam ni dafa dafa dañ ciy gis ni lii lii professionnel la. Mhm. muy muy def loolu bon te yàlla na ko sunu borom jàppale bu baax a baax a baax a baax. Euh, te danoo te dafa am solo lool tamit vidéo boo koy def na nga def loo xam ne vraiment bu ko doomu aadama gisee xam ne lii nii méngoo nag li ngay wax te aussi tolloo tolloo nag tolluwaay jamono ji. waaw mais pas nga nekk koo xam ne da def ay vidéo yoo xam ni euh, waaw kenn du xam ne mu doon xam waaw. Euh, numéro bi da nga koy partagé ak Backa Niang ah. mhm. est ce que xam nga Backa loo xalaat ci Backa Niang et surtout clip bi nga xamante ne mu na ko def muy jeex. waa jeex na ba clip bi man dèjà man Mbacké euh, Niang chanson bi maa ngi moom sama téléphone. Mhm. moo xam ne si dara. dañuy jokkoo bu baax a baax. Mhm. gaañ bu baax la quoi gaañ bu baax dañuy day say interview parfois il me dit kaa ma déposé la déposé ma damay bëgg dem fenn mu bàyyi def déposé ma foofu. Mhm. et tout donc gaañ boo xam nitu kese la quoi. mais avant loolu sax man yàggoon naa ko apprécier. parce que xamoon naa ko xamoon naa musique am tu vois je veux dire doo Euh, hip hop te doo wax Baka Niang quoi moment boobu nag avec son groupe voilà <laughs> doo wax loolu avec son groupe tu vois. Uh-huh. da ngay daje ak ñoom concert sax yow da ngay am problème parce que mën nga bañ a yéeg quoi. donc mooy loolu mu nekk gain boo xam ne gain baax baax. Mm-hmm. xam nga positif xam li muy def xam fu mu jëm. Mm-hmm. te style musique bi muy def nii mën naa ne moom rek moo ko fiy def ah je veux dire il fait partie des rares personnes yu ko fiy def quoi. te musique bu internationale la et puis voilà. nickel nickel like naa ko clip bi nu mu ko tourné noonu biir États-Unis et tout mhm. franchement j'aime bien et puis son bi le fait que mu laax ci olof anglais swahili mélange boobu dafay wane ni nit dafa war a tijjeeku xam nga warul yem ci benn place rek quoi day tijjeeku ndax tey jii ku nekk mun na ci gis boppam mhm. et puis mbëggeel la way mbëggeel la quoi en gros donc mbëggeel moom ñëpp lay laal quoi ñëpp lay touché maa ngi maa ngi nuyu ñëpp vraiment fàttewuma waa New York City euh, bi nga xam ne vraiment Harlem fa laa tourné clip bu Dieynaba bi ñëpp jàpp ci vraiment ñëpp jàpp ci ñëpp dem ak yéene ak man man aw ma seen fay franchement parce que dama fa nekk mais euh, xeebuñu ma euh, su ma wootee dañuy ñëw di ñëw samay soirée bu baax a baax a baax a baax a baax euh, wan ni ma carrément ñun kat fii ku fi ñëw da ngay ñibbi mais yow dañoo nekkoon ak yow nga nekk ak ñun aw ma seen fay ñoom ñëpp ku ci nekk yàlla na suñu borom fay waa Sénégal aussi tamit di leen wax ni leen xamal comme ni ma koy faral di waxee rek seen doom seen xarit yóbbu la you know euh, ñëw na Sénégal vraiment di pare albumam aussi euh, maa ngi pare sama album boo xam ne incha allah bu génnee euh, am naa ci yaakaar bu baax a baax ni dina neex sénégal yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di nuyu waa ginnaaw raay gi nga xam ni fa laa juddoo yaroo fa dëkk fa waa Pikine fàttewuma leen ñoom ñëpp maa leen di bëggee bu baax a baax a baax a képp koo xam ne rek yaa ngi bëggee Backa Niang di seetaan tas tasaat jeena boobu mi ngi noonu nag. merci beaucoup Bakar. waaw ah, merci beaucoup maa ngi lay remercier si invitation bi euh, di la du ma la féliciter dama lay encourager. Mhm. parce que damay xam ni euh, tu as du pain sur la planche. Mhm. comme ñun ñëpp daal lu mu wax Afrique dañu war a war a jóg. donc mhm. instant yi nii guñ dara dañ nekk si début yi donc on a du on a du pain sur la planche par rapport aux autres dañuy fight donc dama lay encourager bu baax a baax a baax voilà yàlla jox la énergie bi. énergie bi ak inspiration bi yëpp pour nga mën a gën a créer ay yeneen émission yu gën a nice et cetera et cetera voilà ngi maa ngi big up ñëpp TFM One téléspectateurs yi ñu doon seetaan fii la ñuy ndax képpee seen émission amoon mbégte lool ci jàkkaarloo bi ñu ngi gërëm nag artistes yi nga xamante ne ñoom la ñu dalaloon muy Stéphane Kabou ak Bakaño gërëm tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàpp ci émission bi jatu ci image yi di remercier Pape Silla ci son bi alu si montage bi maa ngi gërëm tamit euh, salon Mahadi Coiffure nga xamante ne moom moo jaar ci yu baax yi daal di nekk euh, euh, Mariste 2 chez Taco ñu ngi leen di nuyu ak ñoom Anta Marème Kiné ak ñi nekk ci salon boobu yépp yéen téléspectateurs yi nag du ñu def lu dul dig leen daje la semaine prochaine avec deux autres artistes dans un numéro de Tastasar à la semaine prochaine